kenn du xalifa mbay borom minti bi maxnaa woo kenn du xalifa borom minti bi maxnaa yaay kenn du xalifa borom minti bi maxnaa gaay ay waleen nu ñaani paas gaal ga sëriñ Babacar Si doy yaa yor gaal ge laay ay waleen paas gaal ga teeri sëriñ Babacar Si doy yaa yor gaal gi gaal ga doo tiit te neer doo sa billaay paasu gaal gi moo lan man tijaan la ay wale nu ñaani paas gaal ga teere na sëñ Babacar Si yaa ñu doy yaa yor gaal fondation xale yi juddu si mbay waa section njoobeen a woote wuy ji leen leen ay wale nga ñaam ne paas gaal teeri na sëñ Babacar Si yaa doy yaa yor gaal ge fondation xale yi juddu si ginnaaw mbay section njoobeen woote na wuy ji ko ay wale na ñaani paas gaal ga teeri na sëriñ Babacar Si yaañu doy billaay ku nekk ak ki lay ñun waa kër xalifa maam xalifa nuy moo yor gaal gee bonsoir à toutes et à tous salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen ñi safoo seen chaîne bi di Mbedd Vision TV en collaboration avec fondation xale yu judd ci ginnaaw mbay tey nag ñu ñëw ba fii ci Njóobeen benn la ci section yi nga xamante rek ñoom ñooy section yi nga xamante ñoo ëmb fondation xale yu judd ci ginnaaw mbay tey nag ñu ñëw fekk si leen fii ci seen dëkk ñu am nak lu ñuy programme. mu am le 5 mai mu di tàkkusaanu Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu Waye rek ni ñuy def mooy daal di jox kàddu gi euh, secrétaire général bi nga xamante rek moom moo Alaaji Jibi Saw ginnaaw bi mu présenté woo wax ñu lan mooy programme bi auzubillahi mina seytaani ñoo dañ loo woo le 5 mai fii ci njóobeen programme takkusaan Sëriñ Babacar fondation Xale Juddu ci ginnaaw mbay donc bépp taalibe fii bàyyi ñu kenn tiijaan murit laayen xaadar ñëpp bàyyi ñu ci kenn ngoo fii ba dëkk yi kër Mamaram kër Mori Njaay kër kër kër Asan Sab Ndiaye ñëpp ñoo leen woo ci programme bi tàkku tàkkusaan sëñ Babacar li am fii cinq mais vendredi tàkk tàkkusaan ko ko waaye Serigne Sab Mbuub ak Oustaz Aliou Ndiaye bàyyi ñu kenn mag ndaw ñëpp ñoo leen woo ci tàkkusaan sëñ Babacar tàkkusaan sëñ Babacar xale yu judd ci ginnaaw ba ñoo ko organisé fii le 5 mais ci jumaa ji fële dañ ko defee 16 heures allah foofu la. salaamaaleykum waa koy mu kon du ñu guddal dañuy jox rek ki nga xamante ni moo di présidente organisation di Soxna Mariam Soxna Mariam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu ku nekk turam ak ci santam. ginnaaw gu ñu sante yàlla junni ci yonent bi. ñoo ngi leen di woo ci suñu conférence bi ñuy organiser 5 mai incha allah fii ci jumaa yu Njóobeen ñi ko organiser nag ñooy xale yu judd si ginnaaw mbay section Njóobeen ñoo ngi woo ñëpp képp kuy waxtu ci laa ilaha illallah ñoo ngi leen di woo ngeen ñëw teewal ñu ci suñu bis boobu salaamaaleykum wa rahmatullahi walaa mu ngoog euh, ginnaaw bi ñu dégloo ki nga xamante rek moo di présidente organisation Soxna Marème euh, kii ñu jox kàddu gi mooy président euh, Diop bu Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar Sy moom wax ñu lan mooy programme le 5 bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki lislaam bi mbokki diine yi. ñu ngi nuyu képp kuy wax ashadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika la wa ashadu anna muhammadan abdahu wa rasula si nuyoo bi ñu lislaam boole muy nuyoo bu tedd te sell te matale muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw loolu nag ñu sant yàlla julli si yenante bi sallallahu alayhi wa sallam ah bu ngeen gisee nii rek fa tabarakallahu ah ngeen xam ni am na mbir mu xewate mbir mu mag bu jëm si wàllu diine muy lan tàkkusaanu serigne Babacar si ñan ñoo koy amal fondation xale yu judd si ginnaaw mbay section Ndiobène ànd ak seen président job sop serigne Babacar si ak xaasi jibi saw secrétaire général ànd sec présidente organisatrice soxna Marem Ndion ak suñu présidente fa tabarakallahu soxna Marem Thiaw ñu ci woon ak képp kuy wax ashadu an la ilaha illallah waxdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasula ñu ngi lay woo si tàkkusaan gi muy kañ la cinq mai incha allah à seize heures si njóobeen kan moo koy taxawee sam mbub di sëriñ sam mi nga xamante ni fa tabarakallahu àdduna bi yépp xam nañ ko ñu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla lafal ko cat conférencier bi kan la oustaz Alioune Diagne fa tabarakallahu musëriñ mbay si abdu fa ñi ñuy woo tund bi yépp rawati na ñi nga xamanteni ño wër kër mam maram kër modou ndjay kër abdou ndjay sam ndjay daru touré kër assane ndjay ba njaxate ndiasan wa lam-lam gar wa ba ñi ngi bambara di wo wa lalan ñi ngi wo wa sax jasab waaye rawatina nag lépp loo xamante ni yaa ngi bokk ci région Thiès ba Tiwaawan bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñépp ci suñu bis boobu bi nga xamante ne xale yi judd ci ginnaaw mbay ñoom ñoo koy amal waaye ci teewaayu président national Haji Abdul Aziz Aw fa tabarakallahu di président fondation xale judd ci ginnaaw mbay mu nekk loo xamante ni mi ngi ko amee ci kaw ndigalu xalifa général de Tidiane sëriñ Bay Si Mansour ayadallahu wa xafisa mu boole ko ak ba sëriñ Habib si Dabbaax Malik mu nekk responsable fondation xale juddi si ginnaaw mbay waaye mu boole ñoog sëriñ mustapha si ibnu al amin fa tabarakallah mi nga xamante ni mooy responsable dairatul muxtafina bi al abahi wal ajdad kon mu tënku si ndigal mu boole ñoog ñii ñëpp boo ko defee ñu ñaan yàlla rek président national yàlla tekk loxo waaye waa fondation bi ànd ak liggéeyal kenn muy sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu bu ko defee nag bis bi mbokk yi kan lañ ko dara jaale ñu ngi ko dara jaale Muse Abdul Asis tin fa tabaarakallahu di doomu njóobeen kon saan dellu na fa mu jóge woon fa dellu na ñu mbàtt sa ndaala waa njóobeen xew la jël seen doom duppewaat ko bis bi mbokk amuñu si ak kan ñu seeti suñu dëkkandoo di suñu doomu bàyyi dara ñoru ko lu dul tariqa bi muy kan xaaji Asan Diop sa càmbax moom it bokk si Thiès fa tabarakallahu mu bokk si pene yi ak kan ki nga xamante ni tund wi yëpp xam nañ ko muy Modou Gueye taalibe Seex sa kër maam Maram moom it fa tabarakallahu nekk si ñi nga xamante ni bokk nañ si ñi ñu dara jaale bis bi waaye ak kan soxna muy ki nga xamante ni moom mooy présidente fondation xale ji di si ginnaaw mbay di ko am jom fa tabarakallahu di soxna maa jigéen saw fa tabarakallahu muy ku ñu mere ne bis bi kon bu ko defee ñu ngi woo mbokki jullit yëpp ah loolu moy communication bi nga xamanteni mom lañuy yeggal julit yi incha allah mu wara am la 5 mai incha allah si njóobeen à partir de 16 h a ku tardé nak do am place alaaji sam incha allah fi la fasiyena yendusi yendu si Seydina Oustaz Alioune Diagne incha allah fi la fas yéene yendu si ngir rek programme bi teel a commencé kon nag mbokk yi ñu ngi woo ñëpp mi ngi noonu la 5 mai la incha allah bu ko kenn tardé asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaye nag ñu ngi woo section yëpp section Louga Waalo Saint-Louis Risatol Kaolack Tivaouane Guingi Ñeew Zawal Mbuur bàyyiwuñu benn section si réew mi fu section mën na rek gaaya ñëpp ñu ngi leen di woo si suñu tàkkusaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa koy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ko déggandoo ginnaaw bi ñu dégloo li nga xamante ni moo di yëgle bi fondation xale yu juddu ci ginnaaw mbay eh, section Ndiobène di yégle événement lay doon waaye nag ñi ngi ko teg ci ndigalu eh, Cheikh xalifa Khalifa Serigne si Sy Mansour ak njabootug Cheikh Sidaj Malick gi yëpp waaye it ci suñu turu responsable moral eh, Serigne Habib si bu Aji Abdou Aziz Sy Dabakh waaye Serigne Moustapha Sy Al Amin kenn demul mu des le 5 lay doon fii ci Ndiobène bu ko benn wuute eh, dinañu ci xaar euh, monsieur le président euh, international bu fondation xale yu judd ci ginnaaw mbay kon mbokk yi ku dégg li rek xamal ni mooy sa yëgle Aji Samb dina teew euh, borom ki nga xamante ni macha allah moo toj jamono ji waaye nag ki nga xamante ni mooy oustaz Alioune Diagne dana fi teew ni ñuy def rek mooy jox leen rendez-vous ba la 5 incha allah rabbi ak. mbedd vision TV mu ànd ak waa kër Serigne Babacar Sy la nekkoon ca biti mm. la ñuy jëliwaat delloosiwaat ko ci ci kër yi. bu ñu sàggan si Babacar ngalawaay mbokki waa Njóobeen bu ñu sàggan si bis ñu dem ba mbay ku ci sàggan ñu dem mbay ku ci sàggan suñu tàkkusaan gi ku ci sàggan suñu tàkkusaan gi ku ci sàggan ñu dem bala mbay lañu ñu woyloo te topp mbay la ka jiital ñëwul si mbay su jiitoo ñu topp ñun bu ñu jàqee mbay jàlleñ mbay bu ñu tiitee mu wàll mbay ba ko woowee mu wuy ñun bu ñu jàqee mbay jàlle jéggi ñi sirat mbay jàlle nu yaay bu jéggee ëllëg ca kaw nandal ñu kaw mbay lañu wayloo te toppi koy mbay